ku ma xamoon la as tuut bi mu nekkee ministre fekk yooyu tamit maa ngi ci daara ji di jàng euh, mu doon doonoon ko xamante ni dafa amoon engagement dafa amoon li mu gëm ci lépp lu mu gëmoon def ci def dooleem ba mu jeex loolu mun naa ko témoigner maa ngi fàttaliku bi mu nekkee ministre éducation nationale mun day tabax jàkk ji ci université mu indi coow jàkk ji fa nekk tey ci magistère am nañ ko tabax. maa ngi fàttaliku itam 2011 bi ñu fi def forum social mondial mu woo ma ne ma li ngeen di def bëgg naa cee bokk ndax man itam intellectuel laa comme ñëpp d'ailleurs jour boobu moo ñu yombalal rencontre ak Abdoulaye Wade audience bi ñu doon ñaan ak Abdoulaye Wade mais yemul foofu mu ñëw fekk liggéey bi débat yi amoon ci àdduna gi géopolitique histoire

c'était en 2011 2012 plus def une édition bu de la crise géopolitique En 2014, ci avons itam 2014 forum social africain invité en tant que historien ak Noa Cissé ñu parlé wax histoire géopolitique Sénégambie boobu itam mu ñëw participer donc boobu moo tax tey jii bu li xewee ndegam dafa bokkoon ci ñun forum social dafa dafa nekkoon intellectuel nekk ancien ministre ñu nekk ak moom nekk sax citoyen ordinaire am nañu obligation ñëw fekkee bés gi tey di ko ñaanal yàlla di ko jaal Sénégal yëpp.